Abdoulaye Thiam ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay di nuyu auditeur ak auditrice su eh, Rewmi FM yëpp. Mm-hmm. nga jiite association nationale presse sportive bi euh, doon tamit rédacteur en chef bu Sud Quotidien tey jii ñu wax ci euh, li nga xam ne moom lañ nemmeeku euh, jëm ci présidence su CAF jamono ji candidat yi tey FIFA daal na jël dogal homologué candidature yi ndax li ni mel lu ñu xaaranti la woon. effectivement lu ñu xaarandi woon parce que boo xoolee processus bi bu mu tàmbalee maa ngi fàttali rek FIFA moo xelal confédération yi nekk ci moom yëpp maanaam xam nga FIFA dafa am juróom benn confédération yi nekk ci biir FIFA ñoom ñoo formé FIFA. Mhm. Europe am na lu ñu tuddee UEFA Afrique am CAF Amérique latine am CONMEBOL. Mhm. Amérique du Nord am CONCACAF Asie am lu ñuy woowee AFC ak Océanie am OFC. ñooñu ñoo formé CAF. Mhm. ñoo formé FIFA plutôt. donc dañ leen ne ku nekk si yéen il faut ngeen créer seen biir statut lu ñuy woowee commission de gouvernance mhm. commission de gouvernance boobu nag élection bu ñëwee moom mooy saytu di xool ndax yow sa profil sa jaar-jaar sa dundin sa capacité intellectuelle ak morale permettre na la yow nga mun a diriger lu ñuy woowee confédération africaine de football wala feneen ak feneen. Mhm. ñu ngi ko sas tamp nag ci doomu Côte d'Ivoire bu xarañ ci wàllum droit ci wàllum yoon muy tudd metre Kizito bu jàngee fii ci Sénégal. Mhm. kooku mooy jiite loolu te ñu reconnaître aussi ci probité intellectuelle am moral bu mu génnee keroog première décision première note ñu publier ko le 7 janvier bi ñu nekk. Mhm. mu wax ci Augustin Senghor saytu nañu sa jaar-jaar xool nañu li nga jot a def yëpp gisuñu ci lenn lu ñagas donc yow mun nga jongante pour nekk président CAF. Mhm. doomu Côte d'Ivoire bii di Jacques Anouma yow tamit saytu nañu sa jaar-jaar xool nañu li ñu def yëpp war nga mun a bokk te gisuñ lenn su lu si lëndëm. Mhm. ñii nag ki nga xam ne moom mooy Patrice Motsepe ak Ahmed Yahya di doomu Mauritanie yéen ñaar seen candidature sur la forme amul benn problème waaye am na lu ci tilim tuuti bu gën nañ ñu woo leen le vingt huit janvier maanaam démb ñu laaj leen ngeen indil ñu si ay firnde. ba loolu ñu leer mu leer suñu bopp. Mm. war ngeen mën a bokk si jongante loolu bu mu amee nag automatiquement FIFA dafa tiit maanaam Gianni Infantino ci saa si la woo ki nga xam ne moom mooy doomu Congo. Mm-hmm. di tudd Constant Omari mu wuut mu remplacer ki nga xam ne moom mooy Ahmad mu nekkoon président CAF te ñu daaneel ko. Mm-hmm. mu ne ko mu munu leen dawalee nii di bàyyi suñu ñaari candidat yoo xam ne ñun ñooñu la ñu bëgg ñu ñëw fële ca FIFA ñu leen nara a ñu leen nar a dindi. donc loolu du fi amee. su mhm. yeboon nga wootee réunion léegi léegi mu wootee réunion lu ñu woowee comité d'urgence ci comité d'urgence nag bariwuñ ñu fi nekk juróom benn bi nit lañu donc président CAF bi génn na donc juróom lañu ñoo ñu ñëw toog ñu ne léegi seen commission bi nga xam ne daloon seytu candidature yëpp léegi seen affaire yëpp jébbal leen ko FIFA bu leen wax di dara arrêté leen seen liggéey bàyyi leen lépp loo xam ne kenn mësu ko gis kenn mënu ko xalaat ñëpp taxaw di ko ŋaññi léegi ki nga xam ne nag moom mooy jiite commission bi moom tamit mu génneewaat beneen bataaxal ñu tuddee ko mémorandum. Mhm. mu fàttali leen lan moo tax ngeen sant ñu. mu fàttali leen yoon bi mu yég mu xamal leen aussi am na loo la nag loo xam ne soo leen ko defee soo leen moytuwul di ngeen am tolof tolof yu métti mais mu yëgal nit ñëpp nag kenn mënu ko teree def liggéeyam moom dina def liggéeyam bu mu egg li ci def nag lu ci mu leen leneen lu ci raxu politique la moom yoonam ne aussi moo tax démb. Hmm. ñuy xaar pour mu mu mu entendre ñi nga xam ne moom mooy Motsepe ak Patrice ak ak Patri euh, ak Ahmed Yahya. Hmm. barke démb FIFA jiitu ko ne léegi ñépp daal dinañ bokk ci jongante bi te moom keroog bu mu bu mu nekkee bu mu waxee ne ñaar ñooñu am na lu ñagas ci seen candidature. Hmm. Ahmed Yahya liñ ko doon tuumal. mooy que ne dafa am benn club am bu nekk ci réewam bu tudd Azak Concorde. bu jaay ñaari joueur am Levante club bi nekk deuxième division Espagne ñu jox ko soixante quinze mille euros mu jël ko mu jël xaalis boobu mu lekk ko cour suprême dëkkam mooy organisation juridique bu gën a kawee ci mm-hmm. Mauritanie mm-hmm. condamné ko ñëpp gis nañu kayit parce que kii am na benn doomu Algérie bu génnee kayit bi kayit yëpp teg ko ci place publique bi jour la yëpp gis ko mm-hmm. ki nga xam ne doomu Afrique du Sud dañ ko ne dabor abord yow parti au pouvoir bi maanaam tey jii nga jël à APR nga ne ko pa ñu ne ko parti bi kat yow yaa koy financé yow yaa leen jox koppar. Mhm. benn mhm. ñaar ki jiite réew mi di Cyril Ramaphosa day day sëy sa rak ñett un ministre de la république bi nekk ci réew mi aussi day sëy sa beneen rak <laughs> donc loolu rax ci dolli encore ñu tuumal ko moom day blanchir xaalis. day blanchir xaalis maanaam day jël xaalis day jël xaalis bu baaxul di ko duggal ci biir at du Sud ba ñu jàpp ko fële ci Botswana mhm. ñu créer ko aussi ci beneen aspect boo xam ne dafa créé woon benn dafa dafa yoroon benn entreprise bu mu yoroon mu indi ay intoxication si yeneen dëkk yi nga xam ne dañuy war Afrique du Sud mais jeexul mu jëloon euh, keroog këlibam dafa amoon cinquante ans ñu def anniversaire mu jël benn bataaxal jaarale ko ci assistantam mu invité képp koo xam ne dafa fas yéene woote ci mois de mars bi di ñëw mu invité leen mu ne leen soo leen d'accord ci sama invitation pour ñëw fekkee cinquantenaire sama club bi nga xam ne moom mooy Mamelodi Mamelodi Sundowns yéen ñëpp dinaa leen jox bi billet d'avion jox leen hébergement ba pare aussi dina am li ma leen jox ci suuf. muy xeetu correction te loolu ñëpp gis ko. Hmm. li ma leen jox ci suuf bi nag boo ko waxee ñëpp dañuy xalaat ne comme moom milliardaire la multimilliardaire la da leen di ger loolu moo taxoon nag africains yi ne kii kat il faut que ñu ñu woo ko ñu xool. ñu saytu affaire am kii wax dëgg yàlla affaire am xaw na lëndëm tuuti pour mu mun a diriger confédération africaine de football. kon daal mais mhm. malheureusement nag kooku la FIFA bëgg mu falu. d'accord moo tax ñu def force yi def ko doomu africain yi noot leen ñoom tamit ñu nangu ñu noot leen liñ fi mun ta wax mooy fekk africain yi ñoo nangu ñu noot leen li Ablaye Wade doon wax rek ku bëgg liberté da nga koy am liberté doo xaar ba nit ki ñëw di la ko jox mënuñu dund esclavage dund traite des din dund colonisation dund ajustement structurel ñu ñëw ba vingt unième siècle nga xam ne léegi de doomu africain yi di commencé di fipp di bañ mhm. ngeen taxaw benn Suisse wala benn italien jógee fële nee leen même boo leen saytoo seen li ngeen saytu ba pare ñu ñoo leen di tànnal kan moo leen di jiitu. kon daal jàpp ngeen ne ba tey nooteel baa ngi fii ci wàllum football africain nooteel baa ngi fii te di olof di wax moom mooy du dëgg uude nu mu lay gisee noonu la lay ëwalee. loo bëgg a wax foofu taxawaayu ñi diriger CAF. effectivement taxawaayu kooku sax ki jiite woon commission d'urgence bi jiitee tey jii CAF. parce que moom mooy doomu Congo di Constant Omar yi gis nga li ko dal defal na leen lu ñu bëgg ba pare ñu sëppi ko moom kot ak benn doomu Algérie ñu leen yéen doo leen bokk ñu génne leen. gis nga ko démb mu ngi wër ci plateau télévision yëpp ñu nekk Europe di wax. di di yuuxu di xataraayu te mu ngi noonu moom moo tax nag FIFA tey jii dugg ci sunu biir campagne dugg ci sunu biir élection di def naka su dul noonu te kenn du yëkkati baat bu gën a ndaw te man loolu mënu ma ci d'accord hmm. en tout cas ëllëg ci biir bu ñu nee ñi nga xam ne ay journaliste lañu waxuñu woon lii lu jëm lu fuñ jëm baaxut hmm. bu ko kenn wax nag africain yi wax nañ sénégalais yi wax nañ européens yi seen bopp wax nañ boo demee tey ji RFI boo demee France 24 boo demee BBC ñëpp ñu ngi ñaawlu taxawaayu FIFA ci élection yii. d'accord président africain yi nag ñoom seen wàllu bopp dañ ci war a jóg taxaw lii ñuy def ñu teguñu ko fenn. Mhm. parce que xel xalaatul benn yoon FIFA di ñëw fekk Ceferin bi nga xam ne moom mooy président UEFA. nee ko ñu nga nar a tànn ñun ñoo lay tànnal. Mhm. dafa mel ni rek Sénégal keroog pour ñun ñu mën a comprendre. Mhm. ñu dem suñu conseil constitutionnel. ñu tànn ay juróomi mbër. ñu ne ñii ñooy jongante pour nekk président de la république. l'union européenne jógee fële wala l'union wala Nations Unies jógee fële nee leen Sénégal ñi ngeen tànn ñun d'accord ci ñi ngeen tànn yëpp il faut que ngeen indi ñii par la force ñii ñu faut ñu bokk par la force ñooñu la ñuy bokk. te ñun war a tànn jiitu réew Sénégal. Nations Unies jógee fële nee leen non non non dara teg leen li ngeen wax yëpp fële ñun ñoo leen di tànnal kan moo leen di jiite. Mhm. xam nga loolu au vingt et siècle. su su la boo nekkee noir mu nakkarewul à moins nga bugg a nekk noir nègre de am na ñoo xam ne nag ni ma Issa wax benn jour. Mhm. daje naa ak moom fële ca Kuala Lumpur en deux mille quinze. daf ma ne africain soo ko joxee cinq mille dollars soo moytuwul mu jaay dëkkam waxuma la mu jaay bu war a fatam de. mais dëkkam la wax <laughs> te loolu c'est triste Issa Hayatou en personne moo ma ko wax donc loolu il faut ñu saytu ko jàngat ko jàngataat ko ñu xam fu ñu jëm baaxul mhm. loolu laa amoon pour wax géew gi yaatu tey muy ñeenti candidat tey jii ku ci nekk chance am euh, nan nga koy évaluer ku nekk am na chance ñoom ñett ñoom ñett ñëpp am nañ sax parce que mhm. boo demee ba nekk candidat d'abord liñ ci laaj dafa yomb dañ la ne yow sa fédération na la soutenir mais aussi fexeel ba am ñaari fédération supplémentaire yi nekk ci biir Afrique mm-hmm. yu lay soutenir mm-hmm. mais nag man li ma ci xaw a jaaxal tuuti rek ñi fi nekk mbër yëpp di jongante kenn dong moo ci génne programme muy maître Augustin Senghor mm-hmm. te moom moo mujjee déclaré candidature am kat ñeneen ñi ñoo ko njëkk jiitu waaye amul kenn ci ñoom ku taxaw nee leen man de su ma suñ ma falee lii laa fas yéene def lii laa fas yéene def lii laa fas yéene def liñ fi gis mooy ñu ngi wër Afrique surtout doomu Afrique du Sud bi di wër Afrique di rencontrer président africain yi te kenn benn journaliste musul musu ko musul wax ne musu ko interroger mhm. musul wax dara musul wax ak kenn bu ñëwee day yore téléphone am di wax ay waxu affaire parce que businessman la mhm. donc li ñu ragal ci moom mooy bis bu nekkee président ki nga xam ne moom mooy directeur de campagne am di Dani Jordan mhm. kooku moo nar a dégg nekk véritablement président de la confédération africaine de football mooy lu ñuy woowee président par procuration loolu il faut que africain yu xam ko. mënuñu mhm. nangu mënuñu d' accord ci loolu. beneen aspect bi ki nga xam ne Ahmed Yaxya. Mhm. nit ñi bu ñu yaakaar ni dafa am xuloo ak xeex diggante Sénégal ak Mauritanie il faut nit ñëpp ñu xam ko Ahmed Yaxya FIFA visé ko FIFA FIFA ko utilisé maanaam lu ñuy woowee cheval de Troie. maanaam Augustin Senghor dafa bokk ci Afrique sowu-jant de l'Ouest mhm. ñu ne léegi da ngay dem nga dugg foofu Senghor bu naroon am quatorze voix foofu au moins lu mu dee dee yow mun nga ci jël ëllëg si biir deuxième tour bu amee mun nga liggéeyu ak ki nga xam ne euh, su fekkee ne jàllul premier tour mun nga liggéeyu ki nga xam ne moom mooy Patrice Motsepe. nga foog comme ça ñu bàyyi la. Uh-huh. ci biir confédération africaine de football. nga foog ne ñu ja ñu xeex ko noonu. kan si moom Augustin. xam nga euh, am na ñoo xam ne bu ñu jiitee dañuy xaw a ragal loolu sama gis-gis la man am na ñoo xam ne bu ñu jiitee bu ñu nekkee ci bopp. Uh-huh. Euh, du ñu bëgg yenn saa am. kenn koo xam ne moo leen di ëpp xam-xam. Hmm. wala da leen di da leen di nar a euh, créer ce qu'on appelle de l'ombre loolu duñ ko bëgg surtout Afrique nag dañuy bëgg ay nit yoo xam ne ay marionnette lañu ay plaisantin lañu. Hmm. mooy ki ñu faloon fii keroog di doomu Madagascar di Ahmad sooy fàttaliku bu baax ndem si yàlla Pape Diouf mu soon na ko wax. Hmm. mu wax ko nit ñi yëpp taxaw fii di ko yuuxu di xataraay di naan kii dafa bañ kii dafa bañ kii te pourtant mu waxoon moom mooy firnde lu moom moo feeñ léegi buñ ko jëlee. utiliser ko comme mouchoir criminel dañ mhm. ko mujjee sànni fële ne ko amul loo ñu benn njëriñ tey jii nga xam ne doomu Congo bi nangu woon encore jouer le nègre de service mhm. moom tamit cëppi nañ ko sànni nañ ko fële nee nañ yow doo bokk te pourtant li tax ñu ne doo bokk dañ ko ne yow dañ la tuumal kese kenn waxu la li nga def nga ko de dañ la ne dañ la tuumal donc dafa am benn enquête bu ñu ubbi ñuy say tu say mbir mhm. te pourtant ki nga xam ne dafay jiite FIFA tey jii mais dañ ko tuumal am na ñaari enquête ñu nekk ci ndodam FIFA jeexagul ci la bokk te pourtant kenn woowu na démissionné. kenn mhm. woowu na génnee kii ka rax ci dolli ñu koy bàyyi bu ñëwee Afrique te li gën a métti africain yi gis nga ne benn doomu Congo. bu mhm. tudd Véron. Mhm. moom mooy toppatoo lépp lu développement à FIFA ci wàllum Afrique buñ ko gisee dafay mel ni ñu gis yàlla parce que africain yi lu leen intéressé mooy xaalis du développement suñu réew. du développement suñu football lu leen intéressé mooy xaalis ñoom ñëpp lu ñuy xeex mooy dugg conseil FIFA. mais pas dugg comité exécutif. loolu moo leen intéressé dem tëdd ci hôtel yu neex bu ñu paree ñu leen ñu émargé ñu jox leen ay million de dollars millions d'euros ñu takk ay chaîne a noor ak ak yu kenn xamul loolu la ñu fii fas yéene def. loolu nag doomu africain les jeunesse africaine n'en peut plus. il faut que ñu arrêté loolu ñu xam lan moo gën a baax si ñun bu nekkee Augustin Senghor moo gën a baax si Afrique pour sukkali football africain nañ ko fal bu nekkee du moom. buñ ko fal nañ jël keneen koo xam ne FIFA moo koy dicté la loi man foofu rek laa d'accord. d'accord en quel buñ nangu jamais di jël kenn koo xam ne FIFA par la force moo ne kii mooy falu même su fekkente ne ku baax na. Mhm. mais l'instant que FIFA moo ko indi africains yi dañu war a taxaw nekk ñu ko parce que yéen a ko yibbi. ci ay ci ay simili rek Ablaye Thiam tey jii candidature unique euh, jëm ci zone ouest euh, africaine ndax yaakaar am na euh, ba tey. candidature unique mënul am Ouest africaine parce que lépp xam nañ ko Augustin Senghor Senghor nga xam ne doomu Côte d'Ivoire 69 ans la am. Hmm. benn mandat rek la mën a def. benn sa candidature am donc kooku xam nga mën wax retirer sa candidature. Hmm. parce que il a 69 ans te boo amee 70 ans mënutoo bokk kaaf mënutoo nekk président en tout cas. Hmm. donc bii mooy candidature am may fàttali ko aussi keroog moom bu mu ba africain yëpp taxaw ne ko nekk candidat. ñoo taxaw dem Chessel à ñu ne ko. kenn warul tere Jacques Anouma tey jii nii mu nekk candidat. Hmm. Augustin Senghor ba ñu sanctionné ci Sénégal yaa ngi koy fàttaliku. ba ñu sanctionné ci Sénégal tey jii nii dañu doon xaar moom tamit mu fay naar bi xoromam. deuxième aspect. Hmm. ki nga xam ne moom mooy euh, doomu Mauritanie. ñëpp xam ne ñu tey jii du FIFA xam na ne du moom moo war a nekk président mais dañ ko ne duggul ci biir Afrique du l'Ouest comme ça ñu mën a ñu bañ a manko ñu bañ a nekk benn nit ñu bañ a nekk benn kaddu. Hmm. nga mun fa am quelques voix comme ça ñu bàyyi ci comité exécutif parce que moom tamit comme euh, contrat am day jeex en deux mille vingt et un élections yi ñuy si kii am day jeex parce deux mille vingt deux mille ko faloon donc mandat bi quatre ans la renouvelable. Hmm. donc li fi des mooy Motsepe ak Augustin Senghor ñoom ñaar ñoo fi de africains yi nag ñoom ñooy xool su fekkente ne wax dëgg yàlla parce que Motsepe kenn xamu ko. kenn xamuk dañ jékki-jékki rek ñu génne ko ni Augustin Senghor au moins ça fait quand même plus de onze ans mu ngi liggéeyal football africain mu ngi liggéeyal football sénégalais. te mu ngi lakk français di lakk anglais keneen kii français kese lay lakk te ah wax dëgg yàlla soo xoolee parcours am nga xoor jaar-jaaram nga xaw a nga xeel nga xool probité moralam. Mhm. ce n'est pas parce que je suis sénégalais je crois que candidat idéal malheureusement du africain FIFA mooy fal africains yi ñooy nangu ba léegi bu buumu jaam bi ñu leen di takkal seen bopp di leen diri donc seen affaire la. Abdoulaye Thiam ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. ok maa ngi lay fay maa ngi lay gërëm di la nga jiite association nationale de la presse sportive Abdoulaye Thiam merci beaucoup.